<laughs> Bintu Cissé maa ngi lay nuyu ma dikk ci kaa bi waa mu ngi noonu euh, Sonko Bambay ma ne ko ci Sonko Bambay takk na mama naa Range Rover MP bii passé ma ne ko ci Sonko Bambay dama bëgg ngeen xam ne takk na jabar samedi bii passé yaa ngi dégg may wax muy sonko sonko lu noonu naan police yi dañ koo moom instant bi dafa bëgg ko ko jàpp dafa bëgg ko ko <laughs> mbaa xam ngeen ne tubaarikàlla euh, mu ngi jaar ci stratégie bi kaa boobu kon yëgoo ko e maa leen koy nàmpal nii balaa maa gont damay gont nii de 14 heures damay ñëw coupé sama laay léegi ma ne ko ci sonko bambay Sonko Bambay takk na mamaanaa Range Rover MP Hélène Afi yaa ngi noonu sama waa waaw kay comme la ma la waxoon dig dikk na yow ci yii lañ la xam takk na jeeg bi moo takk diriyànke bi moo ngénte xale bi moo ko jur juru nañ niroo nañ ñu ngi araw laaxe ñu ngi koy tudd ci yooyu lañ la xam bàyyil politique yow déjà nii rek ci digg politique bi rek nga siif ah man nag samay wax dama koy côté ndax man samay wax kenn du ko tëddee man li ngeen bëgg. xanaa Awa Baba Thiam moom daa bëgg a doon première daa <laughs> réew mi jaxasoo na nag loolu jege yoo na de waaye Awa Baba Thiam lu mu bokkoon nag ex am na nga man fan yi dama gëj ci plateforme bi ma rek salaatul fatiha bul la ba ñëw njaboot ku ndaw gi ñëw weccew sa alal ku ne jël ci sa place ñii ñu ngi wékk seen dara waaye ñii ñu ngi wékk seen i ak seen i seen i seen i sëru naal yi. mais Awa Baba Thiam lu ko jaral loolu yow. <laughs> ah bala may juum Mama Rox ci loolu Awa war naa def bis rek Bougane Gueye ah. ah? mu meloon nag soxna soxna soxna soxna Bougane Gueye bi feebar ba génn àdduna. ah loolu de moom moo jaaxal ñëpp ci diggu réew mi ñu ko maye woon a dund kenn deewagul. mu bëgg suul ker gi noonu ah non suul ker kenn mën ko def. Hmm. li mu def nii trahison la barke Seydina Mohamed. trahison la trahison la. awa Baba Thiam mii kat wérul. dugg ci commentaire xanaa moom dafa rafle góor. mook Bougane Gueye xanaa loolu doomu Orzo la. ah am na ko may kañ lañ am doom. rox cas bi ah. sérieux na trop nag. cas bi ah, dafa sérieux de. sérieux na de. cas bi daal sérieux na quoi sérieux na trop mais Bougane bëgg na coow de nenu baxal asafurlaa nenu baxal bëgg na coow de. ah. <laughs> mais moom mënu woon jàpp ci teleem boobu te góorgóorlu te xam ne moom ba ba muy dee yàlla suturaal na ko. yaa ngi dégg am na ku bind nee na bi am na 11 ans su waaw man de nee naa lii moom fan lañ nekk. sama discours moo gën a pertinente sa discours yow da ngay répéter rek la répétition c'est une pédagogique te yow da ngay répéter papa naa répéter les choses on peut répéter les choses comme ça soo mënul discours doo dem nga toog may wax ngay jël ko sell ki di ko dóor ci kaw Sénégalais yow six mois muy ubbeeku naa lii dafa seer nangam sax e bëgg nañ na ko yokk ba deux cent na ko yokk ba cent mille et eh, dañuy jënd dañuy jënd. parce que réew mi tubaarikàlla macha allah na mu jafe woon ngay lijjante muy kekkaaral léegi kekkaaratul même luy jar mille francs am nañ moyen yuñ ko jënde ndax kekkaaralatul parce que xol yi ñoo ànd xol yi juboo ba pare tubaarikàlla yàlla teg nag ñu neex a xool nag ci réew mi ñoo xam na nga leen di xool rek tubaarikàlla boo nee nii 100 francs yàlla yónnee 100 francs boo nee jë mille francs yàlla yónnee 1000 francs mayel nit ñi jàmm dañuy patienté dina baax. parce que Sénégal kenn mënu koo lijjanti ci six mois wala ci cin mois wala ci un an da teel a siif baara mbay da ngaa teel a siif dañuy xaar yàggul même pas un an nga bëgg ñoo amerde ah yàlla même pas un an nga bëgg ñoo amerde parce que say propre intérêt. ñàkk bañ a fay impôt jeex na ci réew mi impôt yi dañ koy fay impôt yi ku ko wa wàqe woon di nga mu ngi noonu yow sama nin rek mu ngi nii yaa ngi nii tubaarikaala rëkk nga jéeg bu am maanaa ci samdi bi nii léegi nag génnal comme da ngay discours génnal nga ni takk nga jabar samedi damaa bëgg booy discours neel takk nga mamaanaa range rover mp e. waaw waay oui c'est ça takk nga jabar samedi bi passé maman naa ran sudafor mp takk nga ko takk gu ne mut léegi sa jabar la moom it xanaa daa gént première daam noonu wala jéeg ji nga gis ñu jaabante ci pale bi moo tax mu ne xaaral ma dugg muñ kii de chef de quartier sax du ko laal chef de yooyu nga xam ne ñoom la indil plainte yi sax du ko gis xam naa ne fi mu toll da nga am envie jéegu noonu def tagal di jaabante xaaral léegi yàlla baax na xam nga fan laa ko njëkk a eenale bi goro bu jigéen bi gaañoo boo gisee gisuma ko mu def ci teleem discours parce que tele bi dañoo continuer seen programme affaire bu garaaw laa leen di nettali nii day mel ni kii lii intéressé wu ko et dafa bizarre ci man mhm. gisuma hommage gisuma dara tele bi continuer seen programme comme ce n'est rien fait te normalement télé bi dañoo waroon a arrêté lépp lu ñuy def defal ko rendre hommage boo xamante ne suba ba ngoon loolo metti sama xol looloo tax mënuma koo digérer billaahi wallaahi ani kii ko woo xol la mhm. parce que bi amee bu ngeen seetloo dafa continuer programme am te normalement lépp dafa waroon a arrêté ñu defal ko hommage un jour ba deux jour parce que elle le mérite ci laa xamee ne kii fonkul kenn boppam rek ko koy intéressé maa xam ngeen ne loolu laa ko téye ba ma gisee yii rek ci ci laa ci potaxlu dama ñëw rek prolongé parce que dama ko yàgg a pour récupérer ko parce que du nit ku baax am na loo xam ne rafetul même ba si deewu jabaram bi sax tu sens que c'est des larmes crocodile mhm. c'est des larmes crocodile waaw kon nag ñi koy topp ay dof lañ hmm. man nit rek laa xam c'est des larmes crocodiles